amis internet People la di am mbégte ak contentement comme ni m'ont ko à di waxee à Dylan Dalalna di leen dalal nag ci la biir site yi di vipepeople.net ak vipinfo.net ñu fas yéene ñëw une jagleel leen seen émission 100 People 100 people troisième numéro de la semaine ñu une yéene dire tout ce qui est information people les faits divers ñu tàmbalee ko nag actualité people bi ñu ne mystique et maraboutage triste confidence de Mbeng Diatta dañ ma sànni korte sama baat lañ bëggoon a téye mu nekk nag révélation yo xam doy na war ba fa doy war yam waye tamit duñ ne guret ci biir milieu bi c'est pas la première fois ñuy dégg ay révélation yi ni mel rawatina nak ci suñuy artiste waye tamit même ci suñuy biir milieu journalisme ak animatrice

buñ à ci loolu ba tey ñëw ci actualité du net bi nag mu ngi xew-xew vie ca diwaanu Thiès acteur comédien bu mag boobu ñu naan di dafa trafic migrant toute la vérité sur l'arrestation de l'ay Sangaré alias Manga de la troupe Soleil Levant mais tey information yeneen yu bees information yeneen yu leer lu waral loolu mooy que ni loolu noonu yëpp ñu doon wax benn mise en la woon nekk na nag loo xam ne c'était juste pour créer buzz ndax ki nga xam ne moo di mankas yi dafay cinéma ci wàllum immigration irrégulière manam, immigration clandestine Lolo waralon nak mu daldi de def bi sénégalais yi mën ko daldi prêter attention comme ça bu mu ñëwé que documentaire am boobu faire,

woon jotewuñu dara mosuñu am problème c'était juste rek pour euh, prêter attention au sénégalais ñu bàyyi xel ci émission de nga xam ne ñoom euh, koy def ci télé futur Médias di kakatar ndax gis nañ week bi puis émission bi nga xamné bi Bijou Ngoné dina ko euh, tourné mu nek émission confrontation ak paulish Paulish Mbaye Ouzin Kaita ak ki nga xamné modi 10000 10 000 problèmes mu daal di jur polémique ci réseaux sociaux sénégalais yëpp rafetlu émission bi sénégalais yëpp kontaan ci ñoom nag ci la ñu profitoo daal di def nag benn buzz diggante Awa yaa Awa Dieye ak ki nga xam ne moom moo di Aba Stress en tout cas noonu la cas bi demee jamono ji ñu ngi ci seen jàmm ñu ngi ci seen salaam bu nekkoon nag information people la ciy net ba tey ci seen actualité people du net dañuy daal di ñëwaat nak ci benen article ñu né Mantula Jolie l'ex-lutteur Boy devient vendeur de dibi mu nekk nak lo xamné euh, mom mo ñëw ci information yi nga xamné mom lañu la ñu daal di mu jaaxal nak sénégalais yi mbeur bu démé nak ba mujj daal di dem nak bàyyi lamb ji di jaay dibi war nañu xolaat nak bu baax baax baax lamb ji ndax nak ki nga xamné modi moo di Boy Nar leen fàttali mu ngi ngi ci écurie face fofu la nekkoon doon ci béré nak di doon tukki di ñew mujj nak mu daldi di abandonné euh, lamb ji carrément dem tok nak France di jaay li nga xamné modi moo di bi nekk na lo xamné nak jaaxal na sénégalais way tamit jaaxal na ñu mi mi waaye duñ na guret nak y a pas de sommet métier waaye tamit juggé ci lamb dem di jaay di bi nañ ko xoolaat nag doy na waar ba ci actuality people du net dañuy daal di ñëwaat nak ci ki nga xam mom mo di gigi gigi nak daal dina def ben révélation mu ne victime d'une tentative de viol les graves révélations de Gigi mom nee na dafa amone ku ko bëggoon violer à l'époque mu ngi amone lu 14 ans voire 15 ans bobu nak mu ngi woon collège nee ko koo ci koñ boobu la dëkkoon manam koñ bi dënd ak école am ñom dañu demoon ba miinanteeg moom moom ak waa classe am yi suñ daan am kër kooku lañ daan dem toog di waxtaan nee na nag un jour mu daal di euh, dem foofu nag fekk na waa classe ñi mu doon àndal jàngi si wuñu woon mu wéetoon dem kër kooku nag ñu toog di waxtaan kooku jékki-jékki rek daal di tëj portu néegam bëggoon ko violer insisté nag euh, lu bari mu nekkoon nag loo xam ne juróon na polémique ci enfance am waaye tamit juróon na polémique ci li nga xam ne euh, moom moo di entourage am rawatina ay camarades de classe yi nga xam ne moom la doon àndal révélation yo xamné jaaxal nañu ba fa jaaxal yem liko waral moy que ni Guigui depuis ba mu nekkee gigi sar ba léegi mosuñu ko dégg mu daldi def révélation yoy donc du coup gis nañ né album bi génné nako yagol dara peut-être buzz la bëgg wala tamit album bi doxul ni mu waroon a il fallait que nak mu daldi di wax buzz wala mu daldi di créer lo xamné ne day daal album jaay albumam en tout cas dal doyna na waar ba fa doy waar yem ay révélation yu bees tak <laughs> moom la daal di daal ci paquet daal di yu ko jébbal média bi. Ah, bu ñu jugee ci actualité boobu nag dañu daal di dugg carrément ci actualité fait divers yi bii nag doy na waar ba fu doy waar yam maara day taali laay wax nekk na nag loo xam ne ah doy na waar daal. mu nekk nag ñaari góor jigéen yoo xam ne dañ leen fekk ci diggu jàkk ju mag jooju di grande mosquée de Dakar ñu nekk nag di daal di def lu leen saf nekk ci li leen neex ñoom nag ba ñu dugg duggee ci lieu de culte bobu choisir ñu fenn nak xolu ñu fenn lu du xol ruq bi gën a lëndëm ci biir juma joju ñu dem dugg fa nekk ci ci li leen neex vers 3 h du matin malheureusement pour lui xeyna sax yag nañ ko def way yalla su lo bëggee wër moom du xaar ba mu leer fofu la lay fekk daal di la wër mu nekk nak vers 3 h du matin ki nga xam nak moy gardien bi nga xam moy garder li nga xam moy juma ji mom mo leen daal di gis daal di woo ndànk li nga xam xam moo di police euh, centrale ñu daal di ñëw nag débarqué fa wàcce sur les fekk leen ca anam yu mucc ayib anam yoo xam ne kenn ñaanul yàlla nit fekk la ci nga nekk ci mu nekk loo xam ne nag ñaaw na ba fu ñaaw yam ba léegi nag chaque jour ñu ngi sensibiliser chaque jour ñu ngi ciy wax jot na état bi jël en main wàllum homosexuel wàllum góor jigéen ndax jamono ji nag mu ngi bëgg a jël ampleur ci mim réew te nag lu ëpp tuuru buñ jugee ci loolu nag ba tey ci actualité fait divers dañuy daal di ñëw nag ci li nga xam ne moo di wàllum immigration clandestine ndax moom métti nee naa la depuis plus de mois ñu ngi ciy wax ñu ngi ciy sensibiliser mais dafa mel ni ba tey suñu jeunes yi seen nopp yi dafa dul dégg wala tamit bu fekkee ne mu ngi dégg dañuy wax ak ñoom day dugg fii daal di génn fële ah, ba léegi ñu ngi dégg ay cas de décès yu énorme yu bari waaye téréwul xalé yi taxul ñu décourager. Téréwul ñi nga xamné tamit ño yoré gal yi di jital xalé yi di encaissé xalé yi taxul ñu décourager. ba xam nak dafa am lu ci laxasoo am déet l'essentiel moy cas tey doy na ba fa doy waar yem ñun jeunes yi war nañu xolaat bu baax suñu bop xamne bëgg a tekki jarul yenn yi wala tamit bëgg dundal la say wajur wala bëgg jappalé sa famille warul tax ñu jël suñu bakandi ko tey la ndax ndaw moy réew te réew bu amul ndaw dootul réew mu nekk nag loo xam ne jot na bàyyi xel nañ ci bayyi xel bu baax ba tay ci actualité fait divers yi ñu daldi di ñëw nag ci benen actualité bo xamne mom moom miti daal def euh, buzz du net naam politique la gaa mais tamit nekk na loo xam ne Sénégal moom jamono ji dafa neex politiciens yi ñoo mën a jug saagante léegi xastante léegi jékki-jékki nga xëyaat ñu nelaw yeew jubawaat mel ni du woon ñoom li ko waral nag mooy que ne gannaaw bi nga xamee ne maître Moussa Diop dal dinañ ko jubooleeg ki nga xam ne moo di Barthélémy Diaz Ousmane Sonko moo leen juboole ca këram gi nekk foofee ca te kër góor gi waaye yemuñu ca maître Moussa Diop nag ndax porté woon na fi plainte ki nga xam ne moo di Barthélémy Diaz pour diffamation loolu nag la ñu ñëwaat ne plainte boobu sax moo dina dem retiré ko ndax temps yi moom ñu ngi saf ko mbur ak soow seen diggante neexaat na ñu ngi mel ni daal ñaari doomu ndeyu nekk nag loo xam ne jamono jii mu ngi def buzz du net gannaaw nag bi nga xam ne Ousmane Sonko ak Bougane Gueye Dany ñoo ko jiite woon léegi ñu ngi mel ni mburu ak soow ñaar ñi nag ñoom ñoo daal di jël relève bi doy na waax nag. lii mooy wane ne ne politicien jarul xuloo jarul xeex sa mbokk ak sa am di jàmm ak sa dëkkandoo moo ci yem ndax ñoom seeni intéret personnel rek moom moo leen soxal kon nag askan wi jot na nag ñu daal di yeewu. xippi xool suñu bët nag bàyyi suñu xel bu baax a baax a baax te xam ne ah dans la vie jot na nag ñu bàyyi ci xel dara jaru ko te dara tamit taxul ñuy def yenn actes yi doy na wax voilà c'était votre émission 100% people Nous donnons un à contentement di Dior, tout ce qui est information people les faits divers di que jox dig que quatrième numéro de la semaine d'ici là que restez scotché dans vos sites internet VIP info et VIP people merci beaucoup à la prochaine bye.